ci yokk rek lu tuuti moo di sénégalais yi dañu wax Macky Sall ni ko fukki at ñoo ngi lay déglu 31 décembre bu nekk nga ñëw taxaw ci kanamu askan wi lire ce discours mu di chapelet de promes, litanie de réalisation defna naa nangami toni defna def naa nangami toni dugub kilometer tant de kilomètres de route def naa nangami nangam te sénégalais yi gis ñu benn yoon jeexital ci seen dund fukki at nag sénégalais yi tàyyi ci sénégalais yi ni ko ci leadership bu yeewi askan wi ren ñun ñooy wax yow yaa ñuy déglu te yaakaar naa ni won nañ ko ko ndax ba muy def discours ba te xamul lu muy liir ndax casserole yi muy dégg sénégalais yi wax nañ ko lii de cee wax li nga fi mës tëj ci ay nit tëjandoo leen kenn mësu ko fee def ci président ni ñuy luubalee alalu askan wi kenn masu ko fee def fi nga yeggale ci salfaañe ak yàq démocratie masul am ci biir réew mi waaye yaakaar naa ni message boobu dégg na ko bu ko bëgguloon ni dégg itam dégg na ko man nag damay taxaw rek ci benn ci message yooyu moo di scandale yi ñëwaat ci rapport Cour des comptes ñëwaat ci corruption bi ko bi ko lal te nag may wax ni ñuy jël boobu engagement ci kanamu askanu senegal ni leen yeewi askan wi du leen ci lâché mukk du bàyyi dossier boobu mukk te duñu ci tàyyi mukk ndax lu ne jaar na fi ci scandale ak graawaay waaye bii ni mu mel ak jamono ji mu ñëw contexte bi feebar yi faatu yi ñàkk gi nga boole loolu lépp li ko askan wi waroon a saafaraa nga lekk ko kooku duñ ci tàyyi duñ ci bayyi ba keroog ñu koy li tax dossier bi graw ta bon ta sénégalais yi buñu tayi ci taxaw ci di exiger def ko pression xeex ci dafa mënon ñàkk te dafa waroon ñàkk bu fekkon jaaral nañu réew mi fi mu wara jaar suñu conférence de presse bi mujj fii la wax ni président Macky Sall dafa lal doxalinam moy gouvernance am ci ñaar rek corruption ak impunité ñi ko wër ànd ak moom mu ni leen lu ngeen def baax na alalu réew mi lu ngeen ci jël toppatoowuma ko parce que sama concoo laa ngi nii dama koy teg ci dossier yi bu yegsee garantiral leen impinité na ngeen rek jël ci kees gi jël alalu réew mi dem politigal ma gëmm nag ay bëtam ci lépp lu ñu mën a def loolu rek mooy stratégie de gouvernance am moo tax ñi naan génie politique la dañu xamul lan mooy génie politique génie politique mooy mooy président bu am vision bu leer jëlee sa réew ci jafe génnee ko ci situation économique bu difficile réew mi am dal démocratie nga fekk ko mu am fu mu taxaw nga yok ko ba réew mepp nek ci natangé. au contraire li muy def moy gëna a ginaaw, gëna nirmel. a nërmeel ci luddul dul se sa askan wi euh, doole force de sécurité yi opposition japp nit ñi di tej di xoxatal koku du génie politique Koku arbitraire la scandale bi li taxoon mu mën a ñàkk te waroon ñàkk mooy wax naa fi keroog ni ñetti kuréel lañ ci tegoon te benn rek bu ci fonctionné woon correctement lii du am bi ci njëkk mooy conseil stratégique bi nga xam ne moom ci boppam moo ko dirigé moom président de la réplique moo tax ma ni leen ku ñu ci tudd rek dañu la ci tudd gannaawam moom waaye moom mooy le seul et unique responsable loolu mooy la dimension éthique bu réew amee constitution réew ma di dee mu taxaw ni nous sommes en guerre bi mu nee nous sommes en guerre opposition yépp jóg dem seeti ko fekk ko ca pale ba ne ko daal loo bëgg dinañ la ci ànd ak yow ba ñu génne réew mi ci jafe-jafe yi boo nekkee ci guerre la ñu waroon saafaraa guerre boobu la ñu waroon jël muy ngànnaay yi askan wi pour aar askan wi ñàkk ko ba ennemi boobu nga xam ne moo doon ñëw muy virus bi du ñu mën a lor li doy kon suñuy munition ak suñuy arme moo doon xaalis boobu waaye ña ko sàcc ñooñu ay traitre lañu ña leen bàyyi ñu sàcc ko ay traître lañu parce que guerre bu amee yow bo bokkee ci soldat yi nga xamni ne ñoo war a aar réew mi ngay jël ngannaayu réew mi diko sacc diko denc duñ la tuddé luddul dul lolu moy li nga xamni moy responsabilité bi gëna ñaaw ak bi gëna a ci dossier bi nga xamni amna fa comité technique bi nga xamni ministre des finances moko waron gérer gis ngeen fi ki ki ki genn barki dem nek ci ñoom di jema layal nan nangam nangam 6000 milliards 6000 milliards kese bo bo bo boolee li ñu mais loolu amul ko gëna graw itam loolu rek doyna wax nañ ko fi pour que partenaire au développement au Sénégal yépp génnee seen loxo ci lii muy def ci biir Sénégal ndax am nañu ñoom conviction ak clarté ni bép alal buñ fi duggal ci réew mi xam nañ fu koy jaaral diko loubal luubal itam responsabilité am la li tax nak mu gëna graw garaaw may koy taxaw fofu moy ma expliquer leen touti ñaawteef ak bon bon boo corruption amna ko ci réew te li mo fi mo fi nek noonu lay doxale mooy système am corruption waxuma la sax yàq bi muy yàq ci économie bi ndax dafay yàq compétition entre acteur économiques yi ndax xaalisu force Covid 19 boobu jox nañ ci marché ñoo xam ni yeyoowuñu marché bi seeni entreprise mérité wuñu ko booba ñu ngi bàyyi ki nga xam ne entreprise am mérité na ko parce que àndul ak ñoom walla parce que xamuñu ko loolu corruption mu koy indi ci réew. corruption mooy tax askan wi dem ba état bi dootul am légitimité danaan ñii jaraluñ ma dara fu leen état bi wooduñu dem gis ngeen ba mu fii nu mu ko tuddee mbiram moomu tuddoon cleaning day xaw ma cleaning day xaw ma bésu set setal yi bi mu ko fi wootee kan moo ko ci fekk kenn parce que amul légitimité état bi amatul légitimité nit ñi gisatuñ seen bopp ba ko ku mel ni Kagame waxee defee di ko def réewam fële weer wu ne askan wi gën raxas dëkk ba parce que kooku am na légitimité mais kii amul boobu légitimité boko bolé mën nga fi nek diko xayma du jeex ci jeexital yi mais conséquence économique bi bokk na si li tax Sénégal néew doolé li tax Sénégal ndol li tax économie bi baxul moy gouvernance bu bon bobu ak corruption bi lim koy firnde moy donté ñongi wër nan dañuy émergent Sénégal émergent Sénégal nangam amul ben émergence bo fi gis au contraire Sénégal dafa bokk ci ñeen fukki réew ak juroom ñaar 47 yi les pays les moins avancés Nous avons émergence de leen émergence du catégorie pour nous reconnaître au niveau international communauté internationale nous ngi reconnaître pays développés, les pays industrialisés, les pays riches, les pays à revenus élevés, les pays développés. Les pays en développement catégorie pour nous reconnaître les pays à intermédiaires, les pays les pays leneen nous sommes en développement beneen bi

nangam nangam yaa ngi nax sa bopp te bokk na si li ko indi lépp mooy alalu askan bi ñi ko waroon investir fañ ko waroon dugal ci mbay mi ci càmm gi ci napp gi ci infrastructure wala ci jàngal nit ñi ci l'école yu baax loolu la ñu sàcc yóbbu ko ci corruption génnee ko bitim réew wala ñu def ko ci seen ay compte bancaire loolu nag moo tax ñu ne lii jat nañu taxaw ci ñu exige waxuma sax transparence mais lii nga xam ni Cour des comptes wax na ko cour des comptes ne génn ci ñoom di ko di cour des comptes Je leen di wax ni ce rek mën nañ top. le fait que nga génn rek di am lu ñaawteef yoy wax ci magistrat au cour des comptes danañ la ci parce que lolu loi moko wax ma jangal len ko ñu xam ko parce que dafa qui goro koy wax xamul ni lolu amna. dafa am ben loi organique numéro 9970, du 17 février 1999 sur la Cour des comptes loi bi article 75 ma lire la Cour et les magistrats sont protégés conformément aux dispositions de la Constitution du Code pénal et des, lois particulières en vigueur contre les menaces les outrages attaques injures diffamations dont ils peuvent faire l'objet Maintenant, magistrats au Cour des comptes bu defee liggéeyam ci turu askan wi jébbal ko askan wi muy njëriñu askan wi ci information boobu nga taxaw ni politicien encagoulé encagoulé la mooy def nga ko outrage kooku article bi daan na la te mën nañ la cee topp te maa ngi wax Cour de comptes na ñoom comme ñu ngi def liggéey boo xam ne bu mucc ayib la ñu topp lii saisir juridiction yi donte xam nañu ni tant que ñoom ñii ñu ngi fi am nekk di tegi conco ci ay dossier dara mën naa bañ a xew waaye cour bi itam na protéger boppam xam ne lii loi ko ko may constitution ko ko may pour mu ar cour bi ci boppam ndax as askan wi la fi nekkal te am na njëriñ donc pour bañ a guddal ma leen di fatali di fàttali askanu Sénégal yépp ni rassemblement bii ñu tudd pour vendredi allah lu bare bare bare moo tax def Wae ben ci poñ yi képp ku mu naqadi lii xew ci rapportu Cour des comptes bi ci càcc bi ci nekk nga ni mu ngi ci rapportu yi Nous avons depuis 2016 rapport bu nous bi épinglé coude épinglé l'énen, épinglé l'énen, ñu ci transmettre 73 dossiers pour ouverture d'informations judiciaires, def ci ay investigation ngi ci suufu yi ministère de di alal ji képp nous xamni loolu ministère metti la ni ñu Sénégal te bëgg nous avons lay ñaan nga vendredi bi à la place de l'obélisque nga ñëw and ak Askan Wi ak tous les patriotes les citoyens les républicains et les démocrates ñu and pour exiger de Macky Sall mu assurer transparence et ñi nga xamni sacc nañu alal ñu leen justice. À 221, une autre vision de la télé.